jataay yi fàttaliku yoo xam ne kuréel gi nga xam ne sëriñ Sidi moom sëriñ Abdou moo leen ko dénk ngir ñuy saytu ak sàmm njàngaleem sëriñ Abdou ak i jaar-jaaram ngir fësal ko mag ñi fàttalikoo ci ndaw ñi roye ci waaye itam ku du ku di jullit man cee jànge nu muy tabaxee ak dundam ngir waajale ko ëllëgam kuréel googu nag noo fas yéene ànd ak yéen ci jataay yi nu baaxoo amal ci waajale ko màggal gi ci bernde jikko ak yooyu roox muy kuréel gi nga xam ne mooy lañ nata soxaafiya bi sëriñ Sidi tànn ngir ñu féetewoo liggéey boobu yi ci njiital sëriñ Abdul Ahad Jaxate nu ànd kook sëriñ Abdul Ahad Buso Muxtaar sëriñ Abdul Ahad Buso Maram sëriñ Abdul Ahad Buso Maam Asta moom Baye sëriñ Buso sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno ak sëriñ Abdoul Ahad Lo sëriñ Abdoul Ahad Niang ak Cheikh Abdoul Ahad Ka ak bokk yi nga xam ne ñi ngi ci yeneen liggéey te wuutu fa mbokk yi fas yéene ànd ak yéen nag incha allah ci jataay yooyu nuy ànd ak tey nu dikk ci boroom xam-xam al imam al ustaas sëriñ Abdoul Ahad Sané di boroom xam-xam di jàngalekat di yarekat nu fas yéene ànd ak moom ci juróomi tomb moom way juróom sëriñ Abdul Ahad la ko tudde waaye nag juróom juram woowee ko tudde sëriñ Abdul Ahad diggam ak sëriñ Abdul Ahad mooy tomb bu njëkk mi xaritam la woon taalubeem la woon jokkoo googi am ba waral tur wi bëgg nañu cee ñëw tombum ñaareel bi moom sëriñ Abdou ci boppam mi nga xam ne moom la ko woy juróom tuddee nan la doon jëflante ak turandoom woow yi ak itam ba mu koy tudd ci yan anam la amee woon loolu bu nu ci jógee itam danañ wax turandoom bi nga xam ne moom la ñuy waajal bis bi nan la ko nan la ko déggee nu mu ko gisee nan la ko mën a jàngate yan eh, bu ko doon comparé bu ko doon def lëkkalee mu na ak Eh, ki ñuy faral di tudd muy Seydina Omar ca nam doon yare ak nan la yore woon ak xilaafaam méngale googu it danañ soxla aw gisiinam ca loola eh, la ca topp mooy Serigne Ahad ak alquran déggin wi mu ci amoon ni mu ko jëmmale woon ni mu ko dun dunde doon ca yare loolu itam danañ soxla gendiku eh, Serigne Abdul Ahad ci lool yi lañuy mujje rek mooy thème bi nga xam ne commission culturelle bi naka jekk da koy gunge màggal gi ren mu jëloon euh, masuliyatina fil muhafaza ala sawabitil muridiya as cheikh abdul ahad na muzajan sawaabit yooyu nag bëgg nañ aw gisinam ak yan déggin la am ci loola ngir delloo siwaat ndaw ñi ñu bàyyiwaat xel li nga xam ne moo fonde woon murit gi loolu la ñuy tëjee ak moom incha allah kon sëriñ Abdou Lahad ginnaaw ba nu la nuyoo di am mbégte ci dalal la ci jataay bi nga xam ne moom la nuy waajale màggalu suturandoo ngir fàttaliku ko euh, ci ndigalul sëriñ Sidi Mbàkke moom sëriñ Abdou Lahad euh, noo ngi fas yéene ànd ak yow jataay bi di ginnaaw boo nuyoo diggante sa wéyjur wa ak sëriñ Abdou Lahad nan la demee woon ba mu agsi fii alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi e, sëriñ Sidi Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Abdoul e, di ziyaara ay rakkam yëpp rek Euh, rawatina ki nga xam ni moom la ma yàlla booleel muy sama sëriñ ma jokk ci moom muy sëñ jiili mu sëñ ab laat ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp fàttewuñu kenn euh, di nuyu it sëñ Abdou Lahad Ka euh, mi nga xam ni moo ñu dalal ci jataay bi mu doon jataay bu am solo jataayu fàttaliku kenn ci ñi nga xam ni keno yi Euh, diine lañu kenooy lislaam lañu kenooy xam-xam lañu euh, te muy Cheikh Abdoul Ahad kon moom it ñu ngi ko ci sant di ko gërëm ci dalal gi euh, ak occasion bi mu ñu may pour ñu mën a wax ci ku màgg kooku muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bu njëkk bi nga xam ni moom la ñu laaj te mooy Cheikh Abdoul Ahad na yàlla yokk leeram na digganteem ak sama wayjur euh, man ku dégg sant wi nga xam ni ñu ngi cosaanoo ca noo ca muy Casamance euh, sama baay moo fa jóge woon euh, bi mu ñëwee boor yi njaareem la njëkk a nekk waaye diir bu gàtt la fa def ginnaaw gi mu jóge njaareem dem waawan te waawan nag yàlla dogal mu di wut location far dal ci kër baay góor a Mbaye Baye Gora mbay bu ñu ko waxee ñu bari bu ñu déggee xam nañu ko surtout njaboot Sëñ Abdu Lahat ak ña jege woon Sëñ Abdu ndax mooy bàyyi soxna ne mbay eh, moom Baye Gora mbay moomu eh, bàyyi góora la mooy moom la daloon ci moom mu doon gém ca Tiwaawan te diggante Baye Gora ak Sëñ Abdu Lahat defe naa kenn umpaliwu ko woon ci nii mu doone taalibeem waaye na mu jaxasoo woon ak moom Euh, ci foofa nag euh, ci digganteem ak Baye Gora Baye Gora mooy sababu mu xamanteeg sëñ Abdou Lahat euh, bi mu xamanteeg moom nee na ma nag ab diir def na ko ginnaaw gi mu ñëw ci sëñ ci Baye Gora ne ko man daal damaa bëggoon a jébbalu ndax gis naa yoon wi di yoonu mu murit na muy doxe ak la ca nekk sama baay jàngoon na nga xam ni lépp rek day delluwaat ci daan dellu ci njàngalem yonent bi moo tax daal dafa dugg ci sama xol ma bëggoon daal euh, jokku nga wutal ma sëriñ euh, nee na bi mu ko waxee bàyyi góor ne ko léegi danaa la yóbbu ci sëñ Fàllu pour nga jokk ci moom mu ne ko déedéet mu ne ko xalifa moom man damaa bëgg sëriñ boo xam ni daf may ràññee ci biiri taalibeem xam ma sëriñ booba daal moo ma gënal mu ne kon danaa la yóbbu ci sëñ Ablaat mi fii nga xam ni moo fi faral mi fi ñëwoon ba nga xamante woon ak moom fii mu ne ko kooka moo ma gënal noonu la ko na ma ko sama bàyyi waxee même bàyyi góor yit nii la ma ko nettalee yàlla dogal euh, mu ànd ak sëñ mu ànd ak baay góora euh, ñëw ci sëñ ablaat dal di jokk ci moom euh, bi mu jokkoo ci moom it bàyyi góor sëñ ablaat it ràññee ko woon lool xàmme woon ko lool ci biir biiri taalibeem booba nag comme ni ñu ko junjee léegi booba sëñ Abdou Lahad xalifaagut booba nekkagul xalifa booba sëñ Fallou fi ne ah, ñuy dox comme diggante si Baye Góor ak sëñ Abdou Lahad eh, ba bis eh, ginnaaw gi nag ab diir sama baay jóge Tiwaawan eh, dem dëkki Thiès ba mu nee Thiès nag bis sëñ Abdou Lahad ànd ak bàyyi Góor jóge tuubaa doon dem Sow comme sama baay fi mu dëkkoon ci Thiès sorewul tali bi sorewul route nationale bi ci la koy waxee ne ko sa taalibe booba day fi mu dëkk sorewul fii mu dal di ko koy joxoñ suñu ablaat ne ko nañ fa jaar ñu jaar fa bi ñu fa jaaree dafa yem ci ñu teg ma di ma waaj a tudd daf ci yem képp daf ci yem net net ñu ñu may waaj a tudd euh, sama baay nee na ma booba la mu yéene woon mooy tudde ma baayam waaye sëñ ablaat yem ci mu dal di ma koy jox Euh, jébbal ma sëñ Abdou euh, far changé avis ci saa si euh, dal di may tudde sëñ Abdou kon sëñ Abdou moo njëkk a tuuli sama nopp bi yàlla dogal na yit ci doom yi man am naa ay mag ndax ñi sama baay jur man maa ne ci diggante bi ci digg bi toll nañ ci fukk ak ñett juróom benn ñoo mag man ma mag juróom benn waaw waaye yàlla dogal na it man maay kii njëkk a ci yoonu murit ci ñi nga xam ne ñooy sama doom ñi sama baay jur maay ki ci njëkk a juddu loola suñu borom dogal na ko diggante ak sëñ Abdou Lahat it euh, def na ñaari yoon yoo xam ni euh, booba maa ngi commencé xàmmee daan na daan na jóge du doonu ma doon màggal sax waaye ci bu dul màggal daan na jóge Tëngéej gannaaw gi jóge na cees dem dëkki Tëngéej ba fa la mujje noppaloo daan na jóge Tëngéej ñëw tuubaa indaale ma ci sëñ Abdou Lahat Euh, am na ci yoon woo xam ni sax nag indi gëm ma indi ci sëñ ab laat càkkuteefu sëñ ab laat la woon pour mu indi ma pour mu gis ma mooy yoon yoon wu jëkk wa euh, ñu jaxasoo woon lool ba taxoon na daawul fi daawul gëj ci sëñ ab laat bu ñëwaan nit daan na fi def ay fan balaa muy delluwaat Tëngéej euh, noonu la seen diggante demee woon samay mag si ñoo xam ni njàngum tubaab la leen doon jàngloo waaye ngir eh, ci ndigalu sëñ ab laat akuk soññeem moo taxoon man mu dugaloon ma may jàng alquran waaye it eh, amoon eh, pastif lool ci taxawuma ci samam njàng loola moom def na ko bi yàlla defee ñu ba ab diir ba ma jógee daara jàng majaalisit bay commencé woyantu di way way yi di di commencé baax Euh, di am wasnu awsaan yoo xam ni amaana yu ñu mën a nangu la euh, bis nag la ma ne dama bëggoon nga dem yees lu ji sëñ ab laat ndax da juddoo ci yoon wi waaye comme mu kallaf nga léegi dama bëggoon nga dem jébbalu ji ma ne ko baax na moo ma waajal euh, ci ma war a dem Touba jóge Tëngéej ñëw Touba ci waajal googu it bi may waaj mu ne ma boo demee balaa ngay dem na nga bind ab lettre yóbbu ko yóbbul ko ko ndax daf ma daan soññ ci sam njàng waaye bu ma sañoon it lettre boo ko mënoon defi way nga def ko ay way nga def ko ay bayit ci laa bindee eh, xasida googu ma bindoon donte lu bari fàtte naa ko ci ndax daf maa réer ci biir kayit yi yàgg na eh, maa ngi ko matlaaw xasida gi mooy amin tadakkuri athaarin lidi rachadi tahtaddu shawqan ka xusni naaimin nadidi amin mawatini ashyaaxin dawi chiyami fa kulluhum nuuruhu fi gaayatil waqadi dëgg la euh, am na ci yoo xam ni ginnaaw gi bu ma ko xoolaataan daan naa gis ni am na yuñ ci waroon a joyanti waaye booba niveau boobu laa toll woon euh, niveau boobu laa toll woon ma yóbbuloon ko sëñ Ablaat bi ma ñëwee yàlla def maa ngi ko fekkoon Baye Góora Mbay ndax jamono yooyu Baye Góora ci kër gi la daan nekk boo duggaan kër sëñ Ablaat ba ca biir daanaka kees bu mujj ga sa càmmoñ foofa la bàyyi góor ak yenn mag ñu bari fa lañ daan nekk jamono yooyu bu ma mëntaan ñëw nag foofa laa daa nekk ci ñoom euh, ma fekk fa bàyyi góor a jox ko xasiide gi won ko ko ne ko sama bàyyi wax ma ñëw jébbalu si euh, yàlla dogal booba sëñ baa ngi fi mu mu yóbbu ma euh, ci sëñ bi mu yóbboo ci sëñ bi bi ma duggee ci saal bi maag bàyyi góor a ñoo jiitu sëñ bi ci saal bi maa ngi cay fàttaliku booba kuñ daan wax laat ja sëñ Abdou Lahad Dia nekkoon foofa ci wetu sëñ bi maa ngi koy fàttaliku booba eh, bi ma ñëwee it eh, ñu jiitu sëñ bi sëñ bi mu yegsee bàyyi góor a présenté ma ko waaw présenté wat ma ko eh, ba pare wax ko kàddu yi ma ko wax ne ko sama baay moom la ma wax ni naa naa ko naa naa ñëw yeeslu si ba pare ma génne xasiida gi jox ko sëñ Abdou Lahad mu mu jàng ko bi mu noppee mu jox ma ko ne ma jàngal man ma jàng xasiida gi bi ma ko jàngee maa ngi fàttaliku mi ngi naan bàyyi góor moom ban at la la la la la la judd la judd woon ban at sax la juddooti mu ngi koy laaj bàyyi góor di ko fàttali at mooma di ko ko fàttaliwaat. Euh, bokk na ci li ma fàttaliku ci jataay boobu booba fekk nañ fa sëñ Modou Mamoun Niang fekk nañ fa it sëñ Mët Jaañ ba nekkoon daaray kaamil waaw ñoom fekk nañ ko fa fekk nañ ko fa bis booba ginnaaw gi bokk na ca ñañu fa fekk Euh, sëñ sëñ Hamsatu Mbàkke mu borom daaru fekk nañu foofa euh, naka noonu sëñ Njaay Gédé moom it fekk nañu foofa ci jataay boobu waaw mu ngoog loola moom yii yëpp maa ngi koy fàttaliku waaw naa gi nag ba sëñ Modou Mamoun Niang yal na yàlla yokk seen leer ñoom ñëpp euh, moom daanaka xame gi moom mu jë mu jëwul a dakk mu jëwul a dagg ndax daan naa fa dem lu bari bu ma masaa ñëw Tuubaa bu yàgg nag Euh, ginnaaw gi euh, même daaray kaamil bari woon naa fa tànk ba boole woon nañ ma faa ku tuddoon sëñ ya daali mbàkke booba mu fa nekkoon nga xam ne ma fa masaa ñëw daan naa jàppandal lu bari ci sama li may visité bu may yër ci téere yeeg yu mel noonu loo yooya yu may fàttaliku foofu la waaw ndax yi may wax ni diggante quatre-vingt-deux trois quatre la woon waaw euh, ginnaaw gi nag bari woon naa li ma fay màggal lu ëpp màggal laa fa daan ñëw bu ma saan ñëw màggal it daan naa fa nekk ab diir saa bu ma demee tàggu ko bu màggal weesoo am na ci yoon woo xam ne sax dama dem tàggu ko mu ne ma xaaral ba ma yeewi la waaw booba laa mës a gën a yàgg Touba ndax yoon woowu def naa fi lu jege ñetti weer waaw def naa fa lu jege ñetti weer yàlla dogal na it ci yoon woowu la ñu mujjee gisee euh, te le 15 octobre li tax du ko fàtte ndax ci bis boobu lañu ñu coup d'état Thomas Sankara waaw bis boobu laa mujjee gisee ak sëñ Ablaat waaw date li mu doon loola moo tax du ma ko du ma ko fàtte waaw euh, kon nii la demee woon dëgg-dëgg euh, sama giseek moom bu mujj it maa ngi cay fàttaliku euh, ba ma waree yeewi bisu àllarba la woon bu ma bu ma fàttewul an ma ànd faak bàyyi góora ndax booba yëpp ci kër gi foofu laa doon nekk am na jamono boo xam ne sax booba sëñ Mourtala moom mosam sëñ Mourtala mu sëñ Ablaat booba it mu nga fa woon ci benn néegu zeng boo xam ne foofu ñoom bàyyi góora a doon nekk moom ci sëngal boobu la daan nekk moom tamit doon doog a jóge kër sëñ bu loola it maa ngi koy fàttaliku waaw ginnaaw gi eh, bi may yeew it mu am yu ma joxoon ne ma bu ma demee naa ko jox sama baay bokk na ci benn mbàjj mbàjj bu rëy ba mbàjj eskimo yi mi ngi doog a xew nga xam ne benn benn ñoo ko amoon rek joxoon na ma ne naa ko jox sama baay ak benn piis eh, mbasin ris boo xam ni piis la ñawuñu ko woon akub jàllaaba loola du ko fàtte waaw yooyu yëpp keroog eh, yoon woowo ci laay wax ni moom laa mujjee gisee moom kon yi daal fàttaliku la yoo xam ni mubasharatan yi may fàttaliku sëñ Abdou laat <laughs> incha allah. Mm, tabaarakallah macha allah sëriñ Abdoul Ahad Sané ci eh, laytaay bu bi nga laytaay waxtaan wi di lu am solo loo xam ne eh, li nga ci wax ku ko dégg rek te xam kër sëñ Abdou Lahad xam itam entourage ba daan ànd ak moom danga nangu ne lu wér la lu luñ mën a teg loxo la. Eh, mel na ni itam eh, sa sa njëkk gise ak moom dafa meloon ni kuy jël si aw tur ndax li tax eh, ba mu fay ñëw di sa bisub tudd mënoon naa ñëw beneen bis ba mu ñëwee itam mu fekk ñu leew la di la waaj a tudd te joxaguñ law tur loolu day wane ne cir bu mu am ci yow waroon doon ko jël si te jaare ci sa diggam ak sa digg ak sa wayjur la mu tudde la boppam alhamdulilah loolu tawfeex la waaw ah, loolu nga waxit ci ñetti weer yooyu nga xam ne téye na la ko loolu dañuy mën a xamee ne rek ak tàggatoo la woon ci sa digg ak moom euh, tabaarakallaahu yooyu mën a yóbbante ci way jur wa kon daal day wane ne euh, cëslaay fondement bu wóor boo xam ne alaaqa bu gu dëgër goo xam ne amoon na ko way jur wa euh, feddli ko ci yow yow itam nga yeesluwaat ci moom wéyal yeeslu googee ci doomam tabaarakallaahu day wane ne kon kóllëre googi mi ngi sax mi ngi dox Ah, kon sëriñ Abdou Lahad dañuy ñëw rek ci tombum ñaareel boobu yi nga xam ne moo jëm ci nag sëriñ laxaat Lahad sunu turandoo ñu bari dañ koy faral di gam-gamle di ko di ko di ko lëkkalee ka dékkërle eh, ñu bari dañuy gandiku ne dañoo niroo aw doxin mm, eh, Seydina Omar ak sëriñ Abdou boo ko doon eh, nattale nan nga ñu koy joxe ngir mu gën a jage. waaw man day sëriñ Abdou moom. daanaka eh, saa yu ne yenn saa yu ma dégg xissa bu bees boo xam ne maa ngi koy doog dégg ñu wax ko ci moom waaye yu bari ci yooya dama koy mën a delloowaat ci lu lu niru loolu loo xam ne Omar ibnul Xattaab da koo mas a def wala mu mas koo wax waaye dinaa ci citer quelques tombes rek te tomb yooyu yëpp la koy ëmb mooy mooy taxamulul masuliya wa shuuru biha Omar ñëpp xam nañu ni euh, ni mu ni mu responsable woon ni mu mënoon a téye responsabilité xam ni yeggoon na ci ba daan na wax ni euh, jàpp na ni fu jullit mën na nekk ci àdduna bu la fa ab dég jamee sax bu bis pencaa moom la ko yàlla di laaj xam nga loolu shuur la bil masuuliya euh, yëg-yëg la gu mu am ci masuliyaam euh, xam ni euh, lii ko yàlla dénk euh, di mu doon xalifa jullit ñëpp la mu ci doon yëg mooy ni jullit ñëpp sans amul exception seen lépp moom la ko yàlla di laaj diir bi muy nekk xalifa Omar loolu la dund ba ni mu fi jógee sëñ Abdou Lahat boo xoolee ci jamonoy xali xilaafaam ma shuur boobu la am Euh, ku xool na mu téye xilaafa gi na mu téye Touba euh, ak na mu yaatale Touba ak jël yittey Touba def ko mu doon yittey boppam nga xam ni soxlawul woon dara ci dundam soxlawul woon kenn ku bokk ci moom jege ko Touba moo ko ñor liggéeyu sëñ Touba bi moo ko ñor lislaam ko ñor kon loola dafay wane moom tamit fa mu toll woon ci euh, masuliya ak na mu ko na mu ko téye woon ak na mu fas yéene woon doon na na mu doon doxe ci jëmmal masuliya boobu ci mbooleem wàll yi loola buñ koy misaal mën nañ ko misaale ci euh, nemmeeku ga mu doon nemmeeku murit yëpp dale ko ci ñi mu bokkal sëñ Touba magi murit yi dale ko ci seex yi dem ci seex yi jàll ba ci daanaka doomi sax ko gën a doon euh, tut tànk ci njaboot gi sëñ Ablaat ñëpp la joxoon yitte ñëpp la joxoon yitteel ñëpp la doon la doon la doon la doon la doon taxaw euh, Omar ibnul Xataab it noonu la meloon góor jigéen mag ak ndaw ñëpp a yemoon ci moom ku ci nekk euh, joxoon na la sa àq euh, ku ci nekk amoon na fu mu la fu mu la féete ndax boo xoolee mooy ki njëkk defar diiwaan mooy registre bu mag boo xam ni mbooleem ku ku juddu ci diyaarul islaam sa sa tur a ngi ci woon la mu ci jublu woon mooy ni jàpp na ni moo la war a dundal lépp lu nekk ci baytil mal at mu jot euh, da ko daan jël tasaare ko képp ku sa nekk ci registre bi ku juddu tey boo demee dañ lay bind bind sa at mu jot ku ci nekk daan na am lu ñu yëkkati jox la loo xam ne daan nañ jàpp ni mën na laa yor bu diir loola Omar ibnul Xattaab da ko doon def sëñ Ablaat seere yi ñu am ci moom it euh, day firndeelaat loolu ci taxaw gi mu taxawu mbooleem njaboot sëñ ci wàll yëpp nag ci taxawu leen ci seen i mbir ñi ci toll ci wut soxna mu wutal leen soxna euh, loola yépp am nañ ci lu wér la yoo xam ne da ko doon def euh, dama ciy joxe ñaari misaal benn misaal bi danaa tudd ka nga xam ni moom la concerné euh, muy muy sëñ Maam Moor mu sëñ Fàllu yal na yàlla yokk leeram moo ma waxal boppam ni ma sëñ Abla moom masoon naa génn dem Mauritanie jàngi bi ko sëñ ab laat gëjee gis laajte ko ñu ne ko mu ngi Mauritanie daa yónnee ñu dem jëli ko ka ko njëkk ka mu njëkk yónni ba mu demee euh, da koo daa fexe ba rëcc kooka am jëwriñ sëñ Abdou Lahad bu fa nekkoon kooka la mu mujjee yebal kooka Mauritanie la nekkoon kooku di wër sëñ Maam Mor ba gis ko mu ne ma keroog ba muy ba muy indi sama yére sax indaale wu ko ba mu nekk damay jëli sama yére dafa ne ma déedéet bu ñu demee ba loo soxla dinaa la ko jëndal waaye ma sama tànk ak sa tànk ci sëñ Abdou nee na moo ko delloo si loolu nga gis jëfi Omar day feeñ foofu ndax Omar jam jamonoy xilaafaam képp ku am solo ci Madina musut nangu nga génn Madina diiraan fukki at yi mu def euh, xalifa képp koo xam ni Madina daf la soxla tey wala mu la war laa soxla fil mustaqbal Omar bugut nga génn Madina bu mënta ñàkk mboolem magi saxaaba yi nga xam ne kilifa la ñii ak a mag sax ñii doon ay masul ñii doon ay masul ni moom ku ko ci mës a tàggu dana la laaj foo jëm loo fay wuti ñaata fan ngay dox fii ak foofa retour ñaata fan la soxla sang fay doxi ñaata fan la nga wax lépp mu bind ko bu weesoo mu yónnee ñu jëli la Omar diiran xilaafam noonu la doon doxe nga gis sëñ Abdou euh, lii ma sëñ Maam Mor wax yal yàlla yokk leeram moom day firndeel euh, niroo gi mu niroo ko Omar ci jëf jooja euh, mu am keneen kuñ ma wax it ndax waaye dañ ma ko wax bi waasita moom it ci njabootu sëñ Fallou la woon moom jamono yoo xam ne nekkoon na Gabon moom it sëñ sëñ sëñ sëñ laata Latif fexe ba mu jël siwaat ci dëkk bi waaw ba mu jël siwaat dëkk bi euh, forcé forcé soññee ci ba mu jël siwaat ci dëkk bi euh, kon loola euh, lu mën a xew day niroog jëfi Omar ibnul Xataab si ku am solo ci dëkk bi rek Omar musta bëgg nga sori Madina sëñ Abdou Latif ku fi am solo njaboot sëñ Tuubaa gi bëggul woon ñu tasaaroo ñëpp la bëggoon ñu ñu des ci dëkk bi ci Touba loola euh, mu niroo ceeg moom lool. Euh, boole ci bokk na ci lii firndeel ak masuliyaam moom sëñ Abdou Lahad euh, tijaaha al Touba wa tijaaha al muridin mooy am na lu Omar daan def tudde ko al ñu tudde ko al asas al asas mooy lëndëmtu xaw ma nu koy mën a waxe joolof xaar ba guddi muy rondu rondu sax defe naa la rondu la defe naa Euh, moom euh, Omar da daan toog ba guddi kenn doyu ko moom rek mu génn di wër dëkk bi mbedd mu ne mbedd mu ne daan na fa jaar fu mu dégg ñuy yëngatu dana taxaw déglu ba xam ñii lu ñuy wax ndax comme ni ñu xamee buur euh, ña nekk ci sa wet lu ci baree bari boo amul tawféex dëgg-dëgg duñ la wax réalité yi nga xam ne moo ne ci dëkk bi ñu ci bari la la neex rek lañ lay wax loo bëgg dégg rek lañ lay dégtal moo tax Omar da daan génnal boppam amaana xibaar yoo xam ni ña ca wetam duñ ko ko jottali moom moom mu gistul ko boppam néeg bu mu romb kër gu mu romb guddi dëgg ñuy ñurumtalu mu fexe ba teg noppam déglu la ñuy wax faj na ci ay problème yu baree bari faj na ci ay aajo yu baree bari ci noonu mu doon def sëñ Abdou Lahat it loola siiw na ci moom toog ba guddi génn daanaka masqué wu sol sol yoo xam ni kenn du foog ni moom la di wëral boppam dëkk bi ngir xam li fi ne loola dëgg-dëgg euh, muntahaal taxamul la ci ci ci ci masuliyaam sëñ Abdou Lahad daan na bexe noonu nga gis loolu it na mu ca niroog Omar ibnul Xattaab euh, bokk na ci ba tey mooy euh, Omar dajale gi ñu dajale alquran xalaat bi ci moom la tàmbalee ndax mooy ki ko junjoon Aboubacar Siddiq soññi ko ci soññi ko ci Aboubacar bañ ca njëlbeen ga mu topp ko ci ba Aboubacar nangu xalaatu jamul quran ci benn mushaf xalaat ba moom moo ko amee Eh, sëñ Ablaat xasaay di sëñ Tuubaa yii ki ko njëkk a dajalee rasmi yéen mooy sëñ Ablaat hmm? dëgg la ku ci nekk la nga jote woon doon ko dajale waaye dajale goo xam ne dafa officiel moom moo ko njëkk a def hmm? <laughs> ci daaray kaamil <laughs> kenn kenn jiitu ko ci daan na ko jaral lu ne ñëw indil ko lu bari loo xam ni mënoon naa ci mbindu sëñ bi sëñ laat fexe na ba dajale ko ci dawaaw yi nam yii nga xam ne nekk ci eh, ci daaray kaamil Eh, loola it mu niru ceeg Omar ibnul Xattaab kon sëñ Abdou Lahad masuuliya yëg-yëg bi nga xam ni da ko da ko yëgoon ci jaaxal raaya loola foo ko mën a mën a mën a kii rek ko Omar eh, bu ñu demee it ci eh, wàllu dëgëram ci dëgg nga xam ni daawu ko ruse kenn daawu ca xool bëti kenn daawu ca xool lu neex kenn ak ko mën a doon nga doonu sëriñ nga doonub nitu buur nga doonu tubaab ñëpp yemoon ci sëñ ab laat moom la mu la bëgg a wax te muy dëgg loola rek la lay wax amut ku mu daawu ci sóoraale kenn ay taxawaayam ci wàll woowa bari na digganteem ak ay mbokkam waaye digganteem ak nguur ña fi Senghor daan yebal si wala Senghor ci boppam ña fi Abdou Diouf daan yebal si wala Abdou Diouf ci boppam ay taxawaayam ci wàllu woowa Omar it noonu la meloon ba yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ni seetlu na ni dëgg moom fu mu ne rek ah, Omar foofa lay féete loolu Omar dafa ràññeeku woon ci loola ak dëggoom taxoon na maa salaka Omaru fajjan illa salaka cheytaanu fajjan xeyra fajji ruq wu mu jaar seytaan yi day toog teggi ruq ndax daa amut woon lenn caaxaan lu ne ci moom sëñ Abdou Lahat noonu la meloon képp koo xam ne da am danga nga ne ci caaxaan foo séeni sëñ Abdou Lahat wala nga dégg ko da nga ko abal foofa te seytaane it bu ñuy wax seytaane am na yu nit am na yu jinne waaw na seytaane da ko daan moytu eh, moom sëñ Abdou Lahad Omar ibnul Xataab eh, moo njëkk a créé prison tëj nit koo xam ne dafa jalgati eh, sharia te xeeti jalgati ga kooka jalgati xadd ñëwu ca ci sharia Omar ibnul Xataab daan na da na kaso waaye daan na la daan na la dóor ndax naan sàngara gi eh, Omar moo ci njëkk a dóor juróom-ñett fukki yar loolu yëpp ay peine la yoo xam ni yu mu tegoon la ngir yar nit ñi sëñ Ablaat it kadalik ndax noonu la Omar defoon ba ba yéwénal Madina ci ay yàqkat murjifuun ya fa nekkoon Omar fexe ba ba loo ba ñu jóge Madina waaye sëñ Ablaat taxawaayam ci wàllu woowu defe na umpul kenn eh, ndax Touba comme dëkk yëpp lu baax moom fu mu sax bu demee ba yàgg da ngay gis eh, yi rogalaat di ci dugg bari Touba am nay jamono meloon na noonu ndigal yii sëñ munta tere yii sëñ muntaxaa yee salaat eh, sëñ ab laat moo ko tàmbali woon eh, ci tere yu bare bare bari maa ngi fàttaliku jamono yooya ba ñuy doog a tere am na woykat wu ñu daan tudde njaase njaay defoon na genn xasida ak wolofal goo xam ni tere yi la ca defoon waaw maa ngi ciy fàttaliku fu mu naan eh, booy booy dugg Touba da nga fa gis ñu gaare suñ la gisee nga yor ko dañ lay baare mm. xasida gudd la dama ko daan déglu <laughs> njaase njaay Euh, kon euh, wàllu woow it muy muy muy ñoŋal dëkk bi ñoŋal dëkk bi ba nga xam ni lépp luy yàq kenn du ko fi def sëñ Abdou Lahad moo ko moo ko moo ko instauré moo indi brigade spéciale fii Touba hmm. moo indi euh, taxaw dëkk bi ba nga xam ni yi ñuy tere te mu fës kenn du ko fi def loola mooy li may faral di wax ne Touba ku fi yàqoo seen biir kër nga yàqoo mbedd mi kenn du fi yàqu waaw ndax li lu lu yàlla bugut lu sariya bugut kenn du ko fësal ci mbedd mi loola moom lu ma lu ma yàgg di wax la ne daa neex a yare ndax ku fi yàqu seen biir kër yi la ñuy la nit di yàqu waaye du ca mbedd ma wuuteeg nag yeneen gox yi nga xam ni mbedd mee yàq waaye Touba mbedd mi yàqu kër yi ñooy yàq waaw kon sëñ ab laat wàllu woowa it da ngay gis ne am Omar nga fay fekkaat kon détermination bi Omar amoon pastif gi mu amoon ci jéem a jëmmal ak doxal sharia eh, sëñ Abdoulaye Pastef googu yëpp da nga koy fekk ci moom la ca gën a yéeme nag mooy at ya Omar amoon ca ba muy doon xalifa at yooyu la sëñ laat am ba muy doon xalifa waaw moom la amoon ca ba muy doon xalifa te mooy cinquante trois ans Omar it moom la amoon ci ba muy doon xalifa waaw kon yooyu yëpp eh, suñ boroom a xam tawaafuk googa mm. eh, ndax moo mujj doon tawaafuk gii nga xam ni moo am ci doxin yàlla rek a xam kon sëñ Abdou Lahad eh, Omar la nirool ci ñoŋal Touba ba kat du fi yàq am na ci ñoo xam ni dëgg la eh, du du du rafet du kii ñuy wax ay tur am ñoo xam ne sëñ Abdou Lahad moo dëkk bi <laughs> ndax xam nañ ni dañ doon yàq seen nekk ci dëkk bi ak yàq la mu génne leen dëkk bi na ci koo xam ne nañ ko nee nañ ba mu koy génnee dafa ne ko tey boo fanaanee bu ma immaa nga fanaan si dëkk bi wala man du ma fanaan ci dëkk bi boo fi fanaanee du ma fi fanaan keroog la génne génne génne kooku ci yàq Eh, nee nañ jàpp na fi ay nit Omar moo créé kaso daañ te tëjee waaye jàpp na fi ay nit yóbbu leen ñu tëj leen nit sëñ Abdou Lahad def na ko kon doxinu Omar eh, la sëñ Abdou Lahad daan doxe ci léppam ci léppam kon eh, mënees na ko wér na sax nag moom ab mujaddid la ci ab tariqa al muridiya loolu moom laa yashukku fiha ahad waaw dëkk bi it na mu tëddee daf ci joué rôle bu rëy rëy rëy boo xam ni àdduna du ko fàtte ba ba faaw kon ci gàttal lii la ñëw nañ ko tënkaat ci li nga xam ni mooy diggante sëñ Abdou Lahat ak Omar ci yenn niqaat yi nga xam ni eh, yatawaafaqaani fiiha tabarakallah macha allah jërëjëf sëriñ Abdul Ahad ci mu na ba am solo boobu nga nu defal te xel nangu ko xam-xamit nangu ko eh, jamono yi wane ko muy lu leer ni nga ko waxee rek da daanaka jërul dellu Euh, xam naa kon dañuy ñëw rek ci mm, tomb ñeenteel bi jëm ci diggante Serigne Abdoul ak alxuraan waaw ah, ndax gis nañu déggin moom ci amoon ginnaaw fonkeel gaag dund gaag euh, soññe jëme ca ci dimbale daara yeeg euh, encouragé ñay jàng ak ñay bind kaamil fexe ba nit ñi gëm bind kaamil te di ko def ku ko indi lu kaamil dana la jox loo xam ne daanaka at mii mépp moom tabaarakallah laa danga ca xotti da nga ca ñawlu danga nga ca da nga ca lu ne rek mu des waaw ah, kon kon euh, doon na ca soññe di ci tatbiix nit ñi dégg nga di ko jàngale di ko leeral ci anam goo xam ne ak déggam alxuraan tabaarakallah waaw sëñ Abdou moom euh, digganteem ak alxuraan moom ku cay waxit euh, da nga cay wax waxaat rek loo xam ni lu ñëpp xam la ndax benn daaray kaamil gii la mu ca def te fondement asaasu ay kaamil mooy ay kaamil yoo xam ne dañ ko fay def boo fa demee dañ ko fa fekk ay kaamil yu bare bari bil mi aat awil alaaf ay téeméeri téeméeri kaamil wala ay junni kaamil yoo xam ni yëpp doomi dëkk bi ñoo ko bind doomi dëkk bi wala ñuy ci yoon wi ñoo ko bind euh, loola yëpp ngir jox alquran gëddëm ndax kaamil bu nekk ci kaamil yooyu comme ni ko si Abdoulaye waxee léegi euh, ku ko masaan yët daan na la jox loo xam ni amaana boo keroog nga ma a am lu toll noonu loo xam ni dana la amal njëriñ lool moo tax tanaafus amoon ak xëccoo eh, diidoonte mbagg ci eh, bind alquran ci façon ngi mu nekk nag loola ku dem daaray kaamil gis masaaxif ya fa ne eh, danga xam ni dëgg-dëgg lii moom la soññee ba lii am loola ala kulli xaal wala ka soññee ba lii am kooku ku màgg la kooku ku rëy la jox na yitte alquran dund ko moom ci boppam jëmmal ko ci jëmmam moom ndax bu ñu laajee Aïcha jikko yonent bi mu ne leen jikko yonent moo doon alquran loolu la muy tekki mooy ni dundam da ko tënkoon ci alquran sëñ Abdou Lahat it loola la doon def ci dundam fexe woon na ba fépp fu mu mas a teg tànkam lu ñu mën a layal la ci alquran wala lu ñu mën a layal la ci jëfi yonent bi ak saxaaba yi euh, wala jëfi ñi nga xam ni ñooy nit yàlla yi euh, taxawaayam woowu it ci alquran du yees ndax ku xam baayam muy Cheikh Ahmad Bamba ak alquran kon taxawaayu Sëñ Abdu Lahat imtidaad la euh, ci taxawaayu Cheikh Ahmad Bamba imtidaad la ci taxawaayu Cheikh Ahmad Bamba na sëñ bi daan soññee ci mbindum alquran ak ci mokkal alquran ak ci jàng alquran sëñ Abdou dafa ñëw wutal alquran kër goo xam ne it man nañ ne kër googa ko sëñ bi wutaloon foofa ca njaareem euh, moo rogalaat ba yegg ci daaray kaamil gi nga xam ni fondement ba asaas ba lépp alquran la euh, dund ko it moom ci jëmmam ja ca boppam euh, defoon ko mu doon doctrine dustuur bi nga xam ni ci la tënkoon boppam ndax sëñablaat dafa bokk ci li ko ràññee mooy néewoon na lool suñ ab laat def waxtaan muy discours muy discours u màggal muy discours korite korité wala muy waxtaanu tabaski wala lu mën a xew lu dut ni euh, waxtaanam woowu mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy laltaayale ay alquran ci yu baree baree bari nag amoon ci dégg nit woo xam ni euh, kaana faridan fi nawihi euh, li mu lay wax ci alquran jël aaya fire ko aaya nga xam ni borom xam-xam yi lañu ñu cay wax rek mooy euh, xeeti tafsir wa gën a wér ci tafsir mooy tafsirul quraani bil quraan nga xam ni ña ca màcc ci borom xam-xam yi euh, ñu néew lañu euh, ku mel ni Tabari ku mel ni Ibnu Kathir ci misaal ku mel ni Mouhamad Lamine Shinqiti ci adwaawul bayaan fi idaaxil quraani bil quraan ñooñu nga xam ni ci loola la ñu xereñee ci tafsirul quraani bil quraan Cheikh Abdou moom ci waxtaanam yëpp laay ju mu la indil. bu la ko firilee day mel ni keroog ngay doog a xam prime aaya ah, laaya jooju ndax dana la ci génneel loo xam ni eh, eh, musoo koo jortu ni laaya ji mënees na cee mënees na cee dégg nii kon eh, na mu dundalee alquran ci jëmmal ko wutal ko kàggu gu tol nii naka noonu noonu la ko dundale ci jëmmam ja noonu la ko dundale ci ay waxam noonu la ko dundalee woon it ci ay jëfam ndax léppam alquran la istihbar gi nga xam ne ak suratul badiha gi nga xam ni moom la amoon ci alxuraan loola moom fa xaddis wala xaraj nga xam ni circonstance lu mu ko bett bett ca saasa day man a euh, badahiyan day mën a teewlu loo xam ni mooy lijjanti circonstance boobu te lépp rek mu jikko mu jukkee ko ci alxuraan loola am na ci may moo xam ni manees mën naa ne gisuma ci ku ci niroog moom ci wàllu wowa gisuma ci ku ci niroog moom ci wàllu woowa dal nañu yàlla tas ci barkeem Euh, kon kooku mooy sëñ Abdou Lahad. tabaarakallah tabaarakallah sëriñ Abdul Ahad noonu nga ko waxee rek macha allah sëriñ Abdul Ahad ak alquran lu leer la loo xam ne eh, ñi ko dund ak moom eh, amoon nañ ca lu leen yéem dolli ko ca waaru ca ñi ko doon dégg it saa yu ne ñu ngi waaru ci eh, ni muy toftalee aayaat yi ak ni mu koy defee noonu nga ko waxee loolu nag di lu am solo loo xam ne ak jagle la ak may la. tabaarakallaa xam naa kon dañuy ñëw rek ci tomb bu mujj bi mooy thème bi nga xam ne moom lanu ñu ren euh, màggal gi muy masuliyatina fil muhafaza xalaa sawabitil muridiya as cheikh abdul ahad namozajan hmm, sawaabit yi nag xam naa moom dana bari waaye rek euh, ku tudd tërbiya tudd jàng dégg nga tudd kilif am kilifa tudd yar hmm, tudd worma yooyu yëpp ak teggin Eh, dana mel ni lu àndoon ak yoon wi loolu bokkoon na ci li fonde woon yoon wi te gis nañ ne waame yi fi jaar li jamono di indi moo xam day jaari ci politique wala xewit wala yu mel noonu eh, dana dem wala eh, mbali penco yeeg jokko yi muy réseau réseaux sociaux yi danañuy fàbbi lu bari ci ndaw ñi walla sax ñi jaxase lenn ci mag ñi ba di leen joo ci loo xam ne li ñuy dund du woon la murid yu njëkk ya daan dund du woon it li sëriñ bi jàngale kon fàttaliwaat euh, sawaabit yooyu ñu gën ca euh, delsiwaat nangoo dooni murid euh, te doonu murid mooy doonu jullit jullit bu wér boo xam ne ñoŋal nag njullitam ba wut lu ko lu ko lu mu ko ñage loolu moo di ak murid tënku ci ndigal nga xam ne ñàkk tënku ci ndigal ak ñàkk am kilifa ku ko defut seytaane di sa kilifa te jamono jii daanaka ñu baree bari dañuy bàyyi seeni kilifa ca kër ga waaye am ñeneen ñu ne ci yeneen i réew yilif leen nga xam ne ñooy wax ak ñoom ñoo leen di wax la ñuy def ñooy jokkoo ak ñoom ci di leen jàmbu ak di leen soppi ba daanaka dañuy ne ci biir kër gi waaye ñeneen la ñuy déglu yooyu yëpp nag day mel ni am kilifa te tënku ci kilifa ga te ne ci ndigal dana ci bokk ak leneen loo xam ne des na ko ci mën a déggee. nit bu nekk comme ni ko sëñ Abdou Lahad waxee léegi rek dafa am masuuliya ci responsabilité bu rëy ci fexe wattu ak ñoŋal. yi nga xam ni ay sawaabit la ay fondamentaux la ay ponk la ci ponk yi nga xam ni euh, ci la yoon wi tegu euh, junj na léegi euh, ay almuridiya ne mooy lislaam rek te loolu it mooy li wér lépp loo xam ni min muqararaati lislaam amul sikki sàkkan it lool it min muqararaati almuridiya ndax murit Euh, du lenn lu xam ni dafa am lu muy jël ci lislaam bàyyi la ca des ak muridiya du euh, yoon woo xam ni euh, dafay nekk yoon wuy nekk fi xidaa'i al lislaam la ci boppam waaye lislaam goo xam ni lislaam mu mu jëmmal lislaam ci anam gu mu gën a gën a leere gën a wére dinaay faral di wax ni li ma yéem ci yoonu murit daf ca bokk euh, mooy ni yoonu murit léppam dafay delluwaat ci lislaam ci boppam benn gis nañ fi ay yoon yu baree bari yoo xam ni ña nga xam ni ca la ci seeni loxo la yoon wa sosoo seen tur walla seen sant wala seen dëkk day delluwaat feeñ ci turu yoon wa ci turu yoon wa bu may joxe misaal ci Cheikh Abdul Qadir al Jaylaani turam daa feeñ ci tarixa bi tarixam bi euh, bu may wax damay delluwaat ci euh, Cheikh Ibrahima Dasuuqi euh, dëkkam dafa feeñ ci turu tarixam Abul Xasan Chazali village ba mu sosoo di bariyatu Chazala fa la dëkkoon moom it daa feeñ ci tariqaam ñii seeni sant feeñ ci seeni tariqa eh, sëriñ Tuubaa yoonam wii amut lennam moom lu feeñ ci turu yoon wi du santam du dëkkam du askanam loola eh, boo ci delloowaatee di ko comparer ak lislaam loola nga fay gisaat mooy diine yi fi jiitu yëpp donte sax inna dina indallahi lislaam waaye seen i ñooñ wutal nañ koy tur yahudi ya tudde seen yoon wi seen ta seen diine ji seen maam di taaw bu yaqub mooy yahuda ibnu yaqub boo demee ci ya ñu tuddee waat seen diine dëkk ba isa yaroo ñu nan ko nasira ñoom tubaab yi naan ko nazaret euh, boo demee ci buusiya diine yi nga xam ni adyaan samawiya ak adyaan xayri samawiya gu ci nekk rek day dellu am na ci lu muy dellu ci lu bokk ci ca ka ka loxo ka diine ja sosoo ci loxoom ba mu des lislaam lislaam lenn yonent bi nekku ci turam feeñu ca santam feeñu ca dëkkam feeñu ca askanam feeñu ca boo xoolee moo yoonu murit nañu nañu nañu lëkkaloo nañu niroo ci wàllu woowa kon lislaam murit gii mooy lislaam lislaam mooy murit gi amuñu benn différence waaw lépp yàlla rek la nam yuriduna wajha allah eh, loola mooy almuridiya kon fondement usus yi nga xam ni moo leewu lislaam yooyu ñooy usus yi jëkk ci yi nga xam ni ñoo leewu almuridiya su ko defee na ngir gën a ñoŋal liggéey bi ngir gën ko tawjih ci anam goo xam ni dana ràññaatle le ña tënku ci ak ña ca tënkuwul loola moo indi rek shurut yi nga xam ni ponk yi nga xam ni moo tëgg almuridiya te ponk yooya yëpp di delluwaat ci lislaam dinaay faral di wax ni euh, Sëriñ Tuuba yoon wii nga xam ni ci lañu ci lañu teg muy almuridiya particularité yu bare bare bari ñoo ci nekk yoo xam ni doo ko fekk ci weneen yoon même ci biir tasawuf ndax tasawuf bari na ay école yu ci ne waaye Serigne Touba xam école yëpp waaye ba mu ñëwee dafa teg lépp loo xam ni du la tënk ci jëf sëñ Touba da ko fa teg tasawuf amali baat moom la sëñ Touba jàngale tasawuf goo xam ne da lay tënk ci jëf du tasawufu théorie yoonu murit du yoonu théorie gis nañ fi nitu nitu yàlla yoo xam ne dañu théoriser seenu tasawuf Ibnu yi misaal la ci dañu théoriser seen yoon ba ku mel ni ay lu mel ni ay téeréem alfutuhaatul makkiya boo koy jàng yow doo xam lan nga ci war a jëfe doo ca fekk loo war a jëf suusil xikam boo koy jàng doo ca fekk loo mën a jëf loo mën a jëfe waaye sëñ Tuubaa yi téeréem yi bind ci tasawuf dalaa teg ci yoonu jëf dala xàllal aw yoon kon tasawuf amali baat loola waral na doo fekk ci ay téeréem muy siite ñooña am xeeti tasawuf yooya doo fekk ci turu téere sëñ Tuubaa muy muy wax ba bay cité Ibnu Arabi Masalik ak na mu yaatoo yëpp nga xam ni man dama ko compté ni dafa bokk ci min awsa'i kutubi tasawuf Masalikul Jinaan mm-hmm. maa sigari hajmihi waaye la mu boole ci tasawuf néew na nga fekk mu dajaloo ci benn téere wax na ko ba mu jeex cité wu ca kenn ca ñooña ibnu arabi ibnu sabain afifu din talmusaani sadruddin alqawnawi ñoom xalaaj du ci cité kenn ci ay téere loola la mu la la ko waral mooy ràññee gi mu amoon ci ci ci tasawuf nga xam ni mbir mi du looy théoriser mbir mi doonut lu dul yoon woo xam ni da nga ca war a jaar yegg boo yeggee nag la ñu la ñooñe gisoon ci ay tajalliyaat ak seen yooya yëpp boo ko gisee bu la neexee wax bu la neexee noppi waaye yegg moo am solo waaye di théoriser di di nettali ñooña la ñuy wax te yow jóge woo fi nga toog loolu daanaka amul njariñ sëñ bi jàngewul jàngalewul loolu kon yooyu dafa bokk ci yi nga xam ni ab murit il faut mu mu mu xam ko mu xam ko ràññee ko ba jël njàngalem sëñ bi def ko mu doon niituwaayam ci fa muy teg tànkam loole dana ko dimbali te mu xam ni mbiri àddina yépp sëñ bi fekkoon na ko fi yu àdduna yii yaa xam politique la yooyee yépp sëñ bi da ko fay fekkoon waaye teewul mu xàll yoon wii teg la ci yoon wii nga xam ni buggu ci ludut nga yegg yegg giit it euh, yaatal ndax euh, dinaay wax ni ku ne sa tarixa da ko xatal teg ko ci ay ay cadre ka encadré ko ci anam yoo xam ni euh, ku ca jaar ci yow rek lay gis mais Sëñ Tuubaa moo la ubbil cig yaatal la ndax la ko ñor mooy nga doonu murit mooy nga nga jox sa bopp suñu borom bu la neexee jaaree ko ci Cheikh Abdoul Qadir jaaree ko ci Chazali jaaree ko ci Cheikh Ahmad jaaree ko foo koy jaare jaaree ko ci moom waaye nag joxeel sa bopp rek loolu rek moo ko ñor fa kullu wirdin yuridul murida googa lool rek lay jàngale ñoo ngi wax léegi bayiti eh, sëñ Moussa Ka sa maam moo mayoon fa daaru wirdul Qadir ci darajay Chérif ba Abdoul Qadir dellu ma may musabbaatul asri e dellu ma may maxudu waqtal asri saadatan ridan bi duni suxti moo ma ko waraloon fa daarul muxti kon njàngaleem dafa dafa yaatu ndax euh, la ko ñor mooy nit ki tegu ci yoon sawaabit yooya nag nga xam ni lépp sëñ bi da ko jàngale da ko tënk ndax dinaa koy wax ni amut gisuma sëriñ bu wàccoog ay taalibeem ni sëñ Tuubaa wàccoog ay taalibeem ndax la yor lislaam pas-pas la bind na ci lu doy sëkk aqida euh, lislaam li nga xam ne amal la jëf la pour dem bindal na la ci loo xam ne doy na la sëkk yow mi bëgg a la ca topp euh, mooy jikko bindal na la ci tasawuf loo xam ne doy na sëkk pour mën caa defaroo kon wàccoo nag ay taalibeem ci anami wàccoo yëpp tegu ci yoon wa dem moo ca des ma ne yi nga xam ne dañu xew ci jamono nag xew na cay jamonoom waaye loola euh, woññiwu ko wulis mu jaar ci itinéraire bi nga xam ni moom xam na ni yoon woowu moo ko yeggale suñu sunu borom kon loolu tegtal la doy na sëkk pour nga xam ni eh, ab julit moom ab murit moom dara waru ko lu dul mu tënk boppam ci ndigal yooya am fulla am fayda wéy dem yoonam jamono nag politique yàq na ko eh, médias yi yàq nañu ko bis bu nekk nga am loo dégg lu bees loo xam ni bu dee amuloo baas ci tarbiya mën na laa jaxase bis bu nekk ngay dégg lu bees ku amul base mu jaxase la waaye bu ñu delloo ci njàngaleem ak njàngalay njabootam boobaa danañu dimbali ba nga xam ni sawaabit yooya nga xam ni ponk yooya piqué yooya mu tegoon suñu tànk du tarxis mukk walis walis piqué yooyu ci wàllu pas-pas coow li bari na ci wàllu al ahkam amaliya yi ñu war a jëf julli woor ak ya ci aju coow yi bari nañu ci te coow yooyu yépp dëgg la sunu diine ji dëgg la dañ ko jéggaani eh, sosoowul fii mu ngi yàllaa ko jox yonent bi ca màkka waaye mag ñi ba ñu cay jot booba la jamono gënoon a sell tey dañ cee jot ci anam goo xam ne anam gu set wecc la anam gu sell la ñu wóolu ña ko jox ñoo ñu wóolu ña ko jox mu tasalsul ba yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax ñoom amuñu woon problème waaye ba nga xam ni lu ne dugg na fi idéologie bu dee dugg na fi xeeti pas-pas bu ne dugg na fi yow mi nga xam ne nag da xamul say sawaabit xamuloo yi nga xam ni mooy fonde l'islam waaye xamuloo yi nga xam ni moo fonde yoon wii te génnul benn yoon fondement wu l'islam euh, boo góorgóorluwul ci xam yooya dul jël sa nopp taataan ko loo dégg rek jàpp ko boobaa tarxiis dana la yomb tarxiis dana la yomb kon nañu dellu ci xam lay sëñ bi te xam leen ci aqida génnul benn yoon al aqida al ashariya waaye am njàngaleem it ci fiq génnul mazhab malik donte nangu na sax ni nag ña ca des ay sëriñam lañu mashayix yi aw aymati fi lfiqhi malikul ali wa shafii waaye nag gis na yooya xam na ko warasani fiqa al imaami maliki alayhi ridwanul karimi al maliki aw ali al maliki nafaatani lii kunta bil manaafici wa qulta li fiqa al imaami shafii ñeent ñëpp ku ci nekk suñ borom xamal na ko am njàngaleem xamal na ko mazhabam waaye teewul daf laa tënk ci mazhabu malik ne même boo gisee moom mu doxale noo xam ni lam yanussa lam yunassa alayhi fi l mazhab boobaa bàyyil moom na mu jëm na mu na mu na mu doxale nga topp mazhab bi xool ma fiq gu rëy googu rek day dellu ci buraatul xilaaf ndax ab mujtahid sañ naa gis lu wuuteeg mazhabam mu ba mu mu càmbar ko bàyyi jëfe ci masala moomu bàyyi ca mazhabam jëfe lële waaye sañu ko ubbee sañu ko digal nit ñi pour ñu de jox doxe noona foofa ngay xamee fiqu Maazari ba mu gisee basmala wa euh, demee ci charxu talqin gee da ko ca fekk mu gis ni basmala dafa gis na ni daal moom da koo war a jàng moom mu bàyyi ci mazhab Malik topp mazhab Shafii waaye teewul mbindam ak fatwaam ubbeem yépp la mazhab bi wax ci basmala loola la cay wax waaye bu dee moom fii xaasati nafsihi buy buy julli mu jàng basmala noonu la doon doxe fiq gu mel noonu nag la sëñ bi amoon moo tax même bu wutee mazhab bi ci ay ci ab masala wala ay masala waaye teewul da daan soññee ne nañu tënk suñu bopp ci ci mazhab bi bañ koro yi moom ca noona mu doxalee ca masala mooma di ca wuuteeg mazhab bi ndax dafa am tolluwaay wu mu toll moom amaana ñun ñu ci tolluwul euh, du ñu mën a xam du ñu mën a jëfe euh, na mu jëfee moom kon sëñ bi xam-xamam euh, loolu la ñu diggal bu dee ci tasawuf it mu diggal ñu tasawuf bi mu doon junj léegi rek ak tasawuful amali te mooy ak tasawuful junaydi boo demee ci masaalik ñamu cité foofu yëpp dale ko ci imam ba ci cheikh sidil muxtaar kunte ak cheikh mahamadul xalifa ba ci cheikh mahamadul yadaali ñooñu ñëpp bind nañu ci tasawuf waaye la ñu bind ci tasawuf laysa tasawuf nazari baynama tasawuf amali jëf yegg fa nga jëm am sunu borom kon sawaabit yooyu nañu ci tënku te bañ a déglu ña ñuy indil aqaid yu bees yoo xam ne xamuñu ko woon wala déglu ña nga xam ne dañ ñuy indil ay masail yu bees ci fiq wala ay anam yu bees ci wàllu tasaw ci wàllu tasawuf lii sëñ bi jàngalee dafa leer naññ teg na la ci yoon woo xam ne boo ca jaaree am tawfiq sëñ ab laatit loola la ñëw nag samp ko ci dëkk bi dëgëral ko ci dëkk bi jëmmal ko ci dëkk bi ba lépp loo xam ne day sofaanoog loolu da koo xeex bi yadihi tabaarakallah tabaarakallahu sëriñ Abdul Ahad Sané ci mulaaxasaat yu am solo yooyu nga xam ne Euh, delloo siwaat nga ko te mu bokk ci li nga xam ne moom rek moo mën a tax euh, fii jamono toll ci liy xëccoo nit ñi ci mondialisation bi ak li xew nii li ciy tax a mucc rek mooy am kilifa te dellu ci njàngaleem sa kilifa tënku ci moom tënku ca loola te mbooleem ñi fi euh, ñi fi woote ay yoon di jàngale nga leeral nga leeralal nu lu am solo loo xam ne tabaarakallaahu ku ci mel ni sëriñ bi ci njàngale mu leer ci wiraasa gu am solo goo xam ne doon na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ca nam doon dundee ci dund ci dund sunna su leer ku mel noonu yi amut ci mbooleem ñi nga xam ne mbooloo ngi topp ci seen ginnaaw ku ku mel noonu nag ku ko am dara ëpp ci solo la sa turandoo waxoon sëriñ Abdou Lahad daal na ñu fexe ba amee jikko yi ëkk te ba a amee jikko xob xob moom ngelaw mën na ko yóbbu fu ne ba yóbbu ba dugal ko foo xam ne sax moom bu ko fa dugaloon du ko mën a génne kon amee jikkooy ëkk ci li ñu nekk ginnaaw ba mu leeree ci sunu bopp te mooy dellu siwaat ci njàngaleem sëriñ bi ci lim bindal boppam ak ñamu yar ak ñi nga xam ne ñoo ko fi wuutu tey weyal loola di ko yeesal saa yu ne loola jàpp naa ne ku ca tënku doo am benn jafe-jafe ci yiy fëkke ci jamono kon noo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci gendiku gu am solo googi nga xam ne ak leeral yooyu nga xam ne indi ko ko di la ñaanal sunu borom yokk xam-xam bi yokk wér gi yokk kattan gi tabaarakallaahu ba yow itam Euh, dog bi nga jël ci biir yoonu murit te mooy yeete ak yare ak jàngale te mooy lool yi nga xam ne moom la sëriñ bi waxoon ne ca la nekk mooy ndonoom euh, yàlla may la ci kàttan ak tawféex ak euh, ngërëm loo xam ne dana jaare ci liggéey gi ngay liggéeyal sëriñ bi ci xam-xam ci dëkkam bii nga xam ne lu ci waaye def boo ko doon def feneen bu dee ci dëkk bi dañ koy ful kon yàlla na la ci yàlla defal feex di am mbégte lool nag ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne indi nga ko ci waxtaan wi mbokk euh, yi di sant bu baax rek ci ànd gi ngeen doon ànd ak noonu ci jataay bi muy jataayu fàttali ko ak waajal màggalu Sëriñ Abdou Lahad gi nga xam ne moom la ñu dëgmal euh, di soññee itam ci njàngum alxuraan mi nga xam ne euh, moom rek la bëggoon muy alxuraan lu waaye man ci ay kaamil mu defal ko ko waaye itam xasaay di Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne sëriñ bi wax na ci lu ne ci diggam ak boroomam diggam ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye diggam diggam ak jullit ñi ci ay ñaan ci yu am solo loolu lépp itam lu waaye man ci njàngum xasida man ko ci ay dog man ko ci salaatu na bi mu def ko ngir sëriñ Abdou Lahad ndax sëriñ Abdou Lahad kat bisam jar na képp ku dib jullit rawatina ku dib murit nga feeñ ca tàbbi ca delloo ko njukkal ndax dimbale na la ndimbal loo xam ne euh, dëkk bi nga nekk di fi dund dégg ngeen ko ci waxtaan wi ni ko sëriñ Abdou Lahad waxee léegi nim la ko environnement bi bii ak bi nga nekk nim la ko fompale ba mu mucc ci mboolem luy yàq am xel di yàq jikko ba nga tala jaamu yàlla euh, waaye itam nag mu sécuriser la ko may la fi ñu lay wattu ak garde ba ni nga war a dundee ci sab dëkk waaye itam euh, yaatalal la ko teg ko ci norme yoo xam ne ci wàllu assainissement ba nga mën a dund dund gu ñoŋ ci dëkkin bu baax tala jaamu yàlla wet googu rek jaroon na fu ñu tuddee sëriñ Abdou Lahad nga feeñ ci bisam waaye itam nag jar na ko ndax sëriñ bi ci boppam moom mi nga xam ne moom la ñuy roy ci moom Euh, cim njàngaleem la ñu war a tënku keroog bi sëriñ Abdou Lahad feeñee jamono moom moo njëkk a wane mbégteem ci bis bii moo ci njëkk feeñal noo xam ne defu ko woon ci bis ya ko jiitu ya daa xew ci lu mel noonu ba noppi wax ci ne moom damaa am ci moom yaakaar sëriñ Abdou Lahad daana wax ne yaakaar joojee waxtu mën na metta sama yaakaar yi bàyyi yàlla bu ma fekkee booba jant waaw ah, kon bis boobu nga xam ne sëriñ bi wane woon na ci mbégteem ba doxe ca noo xam ne euh, ba wax ci aw turam wax ju rëy jàpp naa ne jataay yi jàll déggoon ngeen ko kon bis boobu buy ñëw mat naa bàyyi xel mat naa fonk bu baax a baax te xam ne lu ca waay def rek ci sa bopp lay dellu lu ca waay def it sëriñ bi nga ko defal kon noo ngi sant bu baax di ñaanal sëriñ di Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad mi nga xam ne uh, moo ko fi nekkal liggéey bi muy liggéeyal sëriñ sëriñ Abdou Lahad ngir jëmmi sëriñ bi suñu borom may ko ci uh, ngërëmal sëriñ bi waaye itam nag di di ko jaajëfal bu baax ci jàppale gi nga xam ne moom lay jàppale liggéey bi ak ni mu ciy sonnee saa yu ne mu ñuy soññ ci liggéey bi ngir xam ne dundal Sëñ Abdou Lahad ak feeñal ko ak wane ko ci anam gum gam yàllool gam dëppool gu mel nii rek la war a doon moo tax mu du ci sonn saa yu ne di ci soññee di jaajëfal yéen ñi doon yéen ñi doon teewlu jataay bi nu ànd kook nag euh, bokki àlla ñatta saxaafiya bi nga xam ne ñoom la sëriñ si di dénk liggéey bi ci njiital sëriñ Abdou Lahad Jaxate ak sëriñ Abdou Lahad yi nga xam ne tuddoon naa leen ci njëlbeen gi yëpp rek